Abbé Alphonse euh, Birane maa ngi lay nuyu maa lay fay di nuyu ñëpp ñuy déglu euh, seen rajo bi voilà abbé Alphonse Birandour bu curé de la paroisse de Gorée euh, déjà ñu lay laaj euh, naka nga apprécier lettre bi nga xam ni abbé Latir Ndiaye euh, bind na ko premier ministre Ousmane Sonko depuis mu daal di àddu jëmale si ñi nga xam ni dañuy muuru te di fréquenter école privée catholique yi surtout ñi nga xam ne dañu koy daal di tere coow li bari trop naka nga gisee contenu lettre bi ak ni ñu koy attaquer depuis lors waaw ku xam la bi Adama Latir Ndiaye xam ne euh, nit ku jub nit ku dëggu la itamit te bataaxal bii nga xamante ne moo lëmbee euh, waxtu gi fu mu ne nii na leen leer te wóor ne dugguleet la bi ànd Ndiaye di artu wala boog di wax li jëm ci li ñor Sénégal kon moom la mu jublu du lenn lu dul ëllëgi Sénégal ak jàmb ji nga xamante ni moom la ñu bëgg ci réew mi xëy na wax nag moom boo xaw a doy waa rawatina bu dee wax mbooloo waaye dafa am lu ñuy naan ah waxu mbedd de tontu mbedd lañu koy tontoo soo waxee ci penc ci penc lañ lay tontoo tamit ci kaw loolu nag la sukkandiku ngir daal di firndeel xaatim li nga xamante ni moom mooy yëg-yëgam te am na ci sañ-sañ ndaxte dafa bokk ci réew mi di Sénégal kon dafa di citoyen bu mën di wax xalaatam ngir jëme kanam ngir lu mu defar réew mi ndegam aaju la ñuy fàttali ni ci jamono yi weesu laata ñuy dugg ci élection yi Labe André Ndiaye def na vidéo bind na ngir ñaan nguur mi fi nekkoon bàyyi ñi nga xamante ni dañ leen téye woon bëgg tere ñu bokk ci élection yi ci ñooñu premier ministre bi ca la bokkoon ñëpp tàccul ko ñëpp rafetlu kàddu yàggul ci 2009 l'abbé André Ndiaye bindoon na benn bataaxal jagleel ko Abdoulaye Wade boobu président ba muy doog a falu ñëw ne li xew fii ci palais bi lii a am ay mbuut ak yi ñoomin seen mu tàntu ko ci bataaxal kon du guleet muy wax xalaatam ci li jëm ci li jëmal réew mi kanam xëy na comme ni ma ko waxee am ñu bëri ñoo xamante waxin bi dafa dëgër ci ñoom waaye tontu bu mu tontu mooy tontu gi war ci ku jël kàddu ci biir penc kii artu ci la bokk. ñu gis ni ba mu waxee xalaatam euh, attaques yi bëri na réseaux sociaux yi actuellement gis nga ni ñu ngi attaqué Abellatir Ndiaye bu baax a baax naka nga ko gisee mu mel ni liberté d'expression bi dafa sooxe fii ci réew mi. a ah, man de li ma leen mën wax mooy wóor na ma leer ma ni la bi ba mu bindee la mu bind la ca noppee jàll ci leneen kon lañuy teg ci ndondam ci ay kàddu yu ñaaw ak kaddu yu saafaanoo dafa mel ni nga jël ndox rek daal di ko sotti ci ginnaawu kanaara kon loolu déjà war mën a euh, téyloo nit ñi ci ci wax bi te André Ndiaye mii labe ma ñu doon tàccu démb Ah, wax dëgg yàlla su sûr et que moom xam na ne mën nga wax loo xamante ne bu dee dëgg nga ko teg dana am ñu ànd ak yow dana am ñu àndul ak yow waaye woykat bi dafa ni on t'applaudit quand tout bien pour toi fekk yaa ngi wax lu neex nit ñi la tàcc waaye fekk yaa ngi wax lu dëggu faw nga nangu itamit mu am ñu teg ci sa kaw loo xamante ni xëy na neexul neexul say mbokk neexul ña ngay bokkal waaye li ma ci bëgg a wax itamit mooy réseaux sociaux yi def ñoo dugal ci guute goo xamante ni dafa mel ni bët bu setul bu ñu ko sañoon yàlla musal ñu ci ndaxte saaga bu ñu ñaaw kàddu gi ñu ñaaw nga teg sa kaw ndodu kilifa day na waar lool xamuñu ko woon ci senegal waaye nag addinay dox jamono di soppeeku waaye lay ñoom maam jàngale woon dañu ko daan dund ak a baaxoon ñu yem ci ñu des ci au lieu ñu nekk ci ñu saagante ci ñu biir te ñu ni noonu ñu ni neen la ñu ni neen la kenn raxuñu ci kon nañu jéem a defar kàddu gi nañu jéem a wodd kàddu gi nañu jéem a muur kàddu gi ba la ngay wax nga mën ko yeggali doo ci daañ kenn daal moo ci sama xalaat. Euh, Abbé Alphonse euh, Ndour est-ce que actuellement. Euh, fii si Sénégal wala à Dakar am na ay école privée catholique yoo xam ni dañuy tere euh, voile bi foofu am na wala amul. daaray njàngalewu jàngu bi. Mhm. Euh, li ci leer te wóor mooy mosuñu jóg ne dañooy ràndal wala dañooy génne wala dañooy dàq koo xamante ne day muur ay cërëb lañ ci ñàññi mooy. la xewoon ca deux mille dix neuf barke démb fii ci gendarme moo di dafa am euh, ay ñu tuuti ñu nekkoon ci ci lim bu tuuti laa bëgg wax ñu nekk ci l'école bi ne duñu bokk toogaay ak ñeneen bu dee jigéen lañu ak góor bu dee góor la ak jigéen lu ñu topp ci góor wala ñu topp ci jigéen ndaxte bokkuñu euh, euh, li ñu mën a oowee genre wala duñu dem gymnastique maanaam éducation physique sol li nga xamante ni moo ci war ngir mën a def liggéey bi nga xamante ni moom lañ ci santaale loolu moom mooy mbir mi waaye du mbirum muuraay fii ci jàngu catholique ci njàngaleem barke démb donc lañu fekkee fii seede ko graduation bi amoon ci école Notre Dame ñu defe ko Sorano boo xoolee caari ci internet yi nga gis ne am na ñu bëri ñoo xam ne dañ cee muuru ci biir diine gi léeg-léeg di dem jàngi mees ci jigéen daal di muuru kon loolu terewuñu ko fi la ñuy tere kay mooy nga bëgg bokk ci daara bii ba noppi te charte bi ñu teg maanaam règlement intérieur maanaam doxalin bi ñu ci teg nga ne duma ci tegu duma ci dox ndax ndaxte euh, man nii laa ko gisee wala nii laa ko bëgg mais bu fekkente ne yow lii nii doy la am na yeneen xeeti daara yoo xamante ni ñu ngi jàngale te lii ngay ñaan fii de doom ñu koy dund kon nga jóge fii nga def foofu ëgg da nga bëgg a imposer nit ñi ne sama gis-gis ñi lay demee kon nii nga lañ koy doxale ña nga xamante ne ñu ngi bokk ak yow te dañuy muuru lu tax yow ci sa bopp nga bëgg yow imposer leen yow say gis-gis te règlement intérieur bi comme ni ñu ko waxee sànq mm-hmm. ah règlement intérieur dafa firndeel ne kër gi de nii lañ koy doxale mm-hmm. yow nga ne dee doo ma ci dox su boobaa nga wuti seneen moo gën a moo gën a yomb euh, Layka bi aussi euh, tontu nañ euh, si polémique bi nga xam ne am nañ am na plutôt ñoom daal gis nañ ne aussi ñu ngi insister ci ñu respecter règlement intérieur bi respecter li nga xam ni moom mooy la laïcité au Sénégal. waaw waaw conseil national du Layka encore une fois de plus taxawaayam moom lay firndeel noonu est-ce que yéen a ngi fàttaliku dialogue national bi. ki nga xamante ne moo taxawloon jàngu bi te tudd Philippe Abraham Tine moom moo jiite conseil nationalu laïka bi ñuy wax moom moo taxaw ci kanamu chef de l'état ca jamonoom ne leen nañu dem ci élection yi li ñu ci yàlla may ñu jël taxawaayu jàngu ba ca bërëb ca bës ga ak ca waxtu ga ñépp ñu ngi koy rafetlu fii ci réewum Sénégal ndaxte fa ñu bëri noppee woon conseil national ak suñuy njiit monseigneur yi ñoom ñoo jégoon ne nañ leen jëm ci élection yi nañu ko waxe woon ak nañu ko digge woon kon loolu wone na ne ñun suñu taxawaay ñun ci jàngu bi ngir réew mi ëllëgu réew bi ak ñu ñor moom dong ñu ñor kon conseil national bu jógee euh, daal di wax kàddu yooyu gën a dëgëral li nga xamante ne nag moom la li constitution xaatim loole la ñuy xaar ci moom te Philippe Abraham Tine bu ko jiitee moom am na ay kuréel yu bari yu bokk di ci waxtaan ngir gën a mën a jëmal suñu réew mi kanam kon yéene bi ñu am ñun jàngu bi mooy réew mi jëm kanam. Mm-hmm. yàqu-yàqu du jógee mukk suñu njaboot. te loolu moo waral conseil national du laïcat jël kaddu bi fàttali ni ah ñun de suñuy daara yi am na nu ñuy doxalee doxalin googu nag añu ñor te doxalin boobu sukkandikuwul ci mbirum diine ndaxte ñun li ñuy jàngale mooy fexe ba suñu réew mën a doon benn ëllëg ndaxte jaxasoo bi nga xamante ni moom la ñu mës a Sénégal moom moo ñu may tey dialogue islamo-chrétien kon loolu dañ ko war a gën a waaye bokk ci mbir ne man du ma nuyonteeg diw wala du ma toog ak diw wala du ma sol lii pour mun a def euh, lii nga xamante ne mooy éducation physique loolu yelloowul maanaam muuraay gi wax dëgg encore une fois de plus du loolu moo ñu ñor lu ñu ñor mooy sàmm jikko yi mooy mën a tàggat xale yi jàngat leen ba ëllëgu Sénégal mën a continuer di doon la mu doonoon démb te dara ñaawu ci loolu moom moo ñu soxla. Ah. conseil de l'AECA loolu lay sundel hmm. Alphonse Birane ñu laaj la rek euh, dernière question maanaam euh, est-ce que tey jii pare ngeen euh, dialoguer ak ñi war a dialoguer waxtaan pour Sénégal tëye bu baax a baax cohésion sociale bi nga xam ne moo fi mës a am malgré diversité bi am ci religion yi ci ethnie yi ci gis-gis yi ci xalaat yi. ku xam jàngu bi de xam ne ci loolu lay mës biy dox ndaxte jàngu bi li jàngal suñu diine. mooy nga sopp sa nawle ni ki sa bopp ma teg ci li may wax toujours ne loolee laa óowalee sama bopp takk ko ni téere la nga bëggul def la nga bëggul ñu def la bu ko def sa morom la nga bëgg sa morom defal la nang ko ko nangu defal itamit bu ñu sukkandikoo ci loolu kon suñu réew jàmm doom si am ñun nag jàngu bi naka jekk dañoo mës a sóobu ci lu jëm li nga xamante ne moom mooy dialogue moom mooy toog di diisoo di waxtaan ba tax ñu bokk ci ay kuréel yu bëri yoo xam ne daf ñoo boole ñun waay diine chrétien ak waay diine l'islam jërëjëf euh, Abbé Alphonse euh, Birane Ndour ñu ngi lay remercier bu baax a baax ci disponibilité bi. jërëjëf merci jërëjëf.